bismillah bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ñëwoon fii tey suñu kër jigéen suñu xarit suñu soppe suñu wóolule ne Mariam Diop Sylla na suñu ko réew yàgg-yàgg yàlla def na borom këram soo mos a ànd ak Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacké ma xale ci réew Italie wala Belgique moom mi ak borom kër mi ñu daan dalal bi moo tax bi yàlla defee muy ji borom te fekk si maamoor nekk Amérique man mi la si maamoor yebal sëñ Fallou Fall ministre conseiller wala ambassadeur dina fii jóge fii am na koor bu njaareem ci négal si maamoor denc ko kuréel googu moo tax ba tey mu doon kuréel bu yàgg na boo xam ne mën naa ne sax ci soxna xarit Serigne Dodo Serigne bi bu baax la doon taalibe Serigne Dodo bu ràññeeku ñëpp xamal ko ci taxawaayam ci yoonu mu ci taxawaayam ci wetu Serigne Saliou Touré moo tax naa ne mu ñu tuddee bis bi Serigne Saliou Touré ndax bis bi at mi dañuy wut turandoo waaye turandoo bi dañuy bëgg bis bi ñu turandoo mooy bu doon nitu alxuraan Sadio rek lu mu gis bi waaye ñu jël ñaari jigéen kenn kii di soxna Alimatu Sall di doomu sëñ Abba de fondation Al Khayriya nekk ci réewu lu baax ci réew yoo xam du fay di def ay def ko wax wax fa mooy lu juddoo ci immeuble bi dañ koy ci ci yoon bi saa suñu jigéen di jàmbaar ne ci Cees bi waaye li fi nekkee mooy di bëri jigéen ñi taxawu jigéen ñi gunge jigéen ñi bërëb bi nga nekk mën na ko def sa kër waaye liggéey bare ay jigéen ñi bëri di bu jigéen xewlee ku xool gis naa ne dañ bu dee bëri sa sa la jógee moo tax ñu ne nag comme bis mi ñu jubale lu ñu jubale mooy fësal lu baax ak yaatal lu baax ñu boole la ci marraine bi muy yaay soxna Aïdou Saliya Sall jëli si ñaari kilifa mu si Mamadou Mbacké mu Cheikh Moutada Mbacké ak Cheikh Ahmadou Bachir mu Cheikh Abdou Khadre defal suñu invité spécial ak suñu invité dëgg kon daal loolu moo waroon jotaay bi tey ñëwoon fi pour remettre la carte bi officiellement bu ko defee yow it mën ko yaatal see soppe ak see xarit. bis bi comme ni nga ko xamee ren ne am fanweeri at ak benn mbokk yi ma àndal ñoom ci jàppale muy oustaz Ousseynou Dieng mi nga xam ni bindu bi lépp inscription yi ak ñi ci war a participer ñëpp ci école Mbengue la mooy école fédération des associations fii ci chambre wóor chambre commerce fi la ñuy bindoo bu ñu fi bindoo ba le 21 le 22 ñu def concours bi ci hôtel la Dior le 23 ñu def cérémonie bi ci stade Iba Mar Dior moo tax du may ñëw man ko yow moom tey sax bi du xaar ci moom. ndax su Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sëtu Cheikh Tidiane Chérif moo war a jógee su fa jógee day jaar ci jumaa yi nga xam ne moom moo fay jiite ci jumaa Abdoulaye Diop bi ci Sadba waaye mu ne ma fu mu joxoon naa la sama kàddu lu mu ma fi ñu jaar ci lu baax bu sax suñu mbéy di sa xarit moom moom it kenn ci biir ci ci ci liggéey bi di ko may jàppale loolu mun naa ne wala organisation bi yëpp ci loxoom la ne sëñ ñaar Baye nga xam ne kenn ci géwéñu sëñ Maam Mor yi fii ci dëkk bi sëñ Maam Mor Moussa ak sama doom Cheikh Moutouka Mbacké ak li mooy sama taw ma tuddee ko euh, sama sëriñ Cheikh Moussa mënoon naa gën a yaatu waaye dañuy dañuy ñëw nii symboliquement remettre le carte bi euh, fi sax ci àdduna ni yow daal yaa boobu yaa boobu cër bi <coughs> wax naa ko way juru sëñ Abdoulaye Sylla bañ nga jëkk di sa tey di sama ma ne ko man de miin ma Abdoulaye waaye bi ma yëgee ni ma dem Diop Sula mokkal na ñu ngi koy taxaw di ko jàppale lu ñu ko jàpp nañ ko gën a jàpp ndax lu dara yëg naa la muy def ci Tuubaa ci di ko def ci réew mi ci yiw di ko def ci njaboot di ko def ci màggal Tuubaa te moom ne kenn ci màggal bi ndax damaa bokk ma ñëw def ko ceeb boobu ñëwoon pour remettre officiellement carte bi incha allahu taala moom daal lii maa ngi noonu sëriñ la incha allah mbiru Sëriñ Abdoulaye Sylla la waaye mbiru Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké la waaye mbiru sa soppe sa sëriñ sa xarit si maamam di monsieur Moustapha kon nag Oustaz moom mu def Oustaz Ousseynou Gueye Oustaz ci ñaari baat suñu paree def Oustaz Ousseynou teg ñaan ñu ngi yëf jotaay bi ndax euh, mbokk bi naa jotaay bi moo dem léegi ci bëgg ñëw yaa eh, jotaay bi yàlla incha allah ni ñu ko waxee noonu la <coughs> ndax nag euh, soxna si dafa maam li nga wax mm. ma fekk ci lu bëri. Mm-hmm. pour ñu doon léegi soxna Khady Sy. Mm-hmm. waaye itam ñu tuddaale docteur Sylla. Mm-hmm. ñoo ko nàmpatal ci li yar ko ci. mooñ ko ci mu màgg ci. kon nag nii rek la mën a mel. te man teew naa fii ci biir kër gi yeneen jotaay yoo xam ne day toog rek woo imaam yi ñëw fi mu kon tàmbali wu ko te ko maree ne teg la mbir mi ci place am. wax tabarakallah ñu sant ko yàlla euh, soxna Serigne Idrissa Dieye moo taxoon ñu xam kër gi muy wëlale ci kër gi yàlla ko yàlla yaa teraanga yaa café Touba yaa lépp yaa loolu la xam teral nit ñi kon moom loolu rek lay xam moom tamit tabarakallah kon soxna si man li ma féetewoo mooy wàllu technique bi comme ni ma ko waxee mu am benn comité de pilotage yoo moo yore liggéey moom daanaka bu demee ba jeex dañ ne concours bi xale dañ tax rek lay xam ñan ñoo bind sax moom yoonam ñëw ci loolu ñu ñoo yore loola ne ko ñii ñoo bind bu defee mu am benn jury jury bi itam ñu ko féetewoo ànd ak ay naaru égyptien ñooy mm-hmm. seet xale yi seet ay ay pàcc la ñu génn ci ngeen di ciy jàpp ñu delloo ko xale yi moom li ñu ciy dajale pour neexal xale yi la ndax alxuraan dafa amoon jamono wax nañ boo sàgganee ba ñuy découragé ci alxuraan bi bu defee moom mu am xalaat dëgg dëgg moom moo def conception woo ñu ci ñu ñoo jàppale ko ci alhamdulilah fanweeri at benn ci ren déedéet mu ngi réussir te tàmbali ba ma amoon xadafe moo ko doon moo ko doon jàppale ñu jàngatu daaw mooy appel islam moo ko doon jàppale bi xadafi demee ne mbir mu day day waaye juróom yàlla kaw rek la Mm-hmm. alxuraan du dem ginnaaw. ndax mm-hmm. dafa bi jëloon jàpp dem na. waaye yàlla mi ko doon dundal mu ngi fi. moo tax bi ñu di dund ba léegi. yàlla li muy def yëpp ci ay nit koy jaarale. Mm-hmm. mu ñu daal eh, ngeen jàpp ci rek. incha allah lu ngeen ci def. yàlla ngeen ko defal moom li muy def yàlla la ko defal. ñu ne liñ ci jàpp yëpp yàlla rek tax wala mu wax dëgg la moom tellement xat xat xat parce que la Mouhamadul Kabir. jógee Maroc. ñu di war ma ko fekk ci jumaa bi laa jóge euh, kon euh, ku fa nekk jumaa ji war na la faa fekk waaye man lii jaral na ma comme alxuraan la ñëw def lii bu àgg incha allah ñu dem mottali liggéeyam di daal la amoon kàddu yi ma ci am salaamaaleykum ci teraanga ji ñu la defal nii ndax teraanga ëppul bisu alxuraan yi la ñu jàpp naa ne teraanga ne tudde la ko te foog naa ne su alquran boo xam ne concours international la ñu ne Maram Diop Sylla ci marraine la bokk foog naa ne su ma juumul mel na ni yaa ko soog a am te loolu teraanga mën ko passé eh, ni ko suñu mbokk Ousseynou waxee noonu la tëddee bis bii foog naa ren na ci fanweeri at ak juróom-benn. benn ak benn. bi nga xamante ne ni yàlla def na ni libi daan nañ ci jàpp bu ñu demee ba moom ay problème dama ñu ne quoi sëriñ bi affaire bi day dafa rëy dafa metti te daan am na ciy jàpp. te koo fomm ba déwén mu ne ma fekkente ni yàlla moo tax ma daan defee lii dina réussir bu fekkente ni sama jëmm ma tax mu daan def nag mu waaye jàpp nañ ni booba bu xale yi doon am ñaar fukk te jàpp naa ni itam amul kenn koo xamante ne di nga jàpp ci bis bi mu dugg këram. maa ngi koy fàttaliku daal rek bi ma koy nettali bi concours bi jeexee dama yëkkal suufu table yi gis fi benn saako suukar man ko seen bi dafay fàtte saako suukar moom yóbbu sa kër maanaam moom bëggul dara loo xamante ni alquran di lañ koy joxe mu dugg ci këram kon moom alquran di lay dundal waaye dundawul alquran kon ñu mu koy ñaanal yàlla bis bi muy def yàlla ko yàlla taxawal jàppale ko ci te itam concours alquran yaatu na léegi ci Sénégal waaye nag bu fekkente ne bu officiel bu ñu xam wax dëgg yàlla moom moo ko fi njëkk moo ne képp koo xamante ni sos nga lu baax mm. ku ci ku ci sosaat di ci def dina am tuyaaba yow mi ko sos nga am tuyaaba kon maanaam concours alquran ku ko organisé waat ci Sénégal rek kooku dinañ am tuyaaba waaye moom mi nga xamante suuf na ko itam dana ci am tuyaaba kon daal nañu jullit yëpp ñoo a jàppalee ci mbir bi réussir ndax bis bu ne am ñu organisé mu fees dell te bu ñu organisé diine am ñu seetaan te itam bu fekkoonte ni wóor na ko yow mii diine ñoom la ñu la tuddee bis bu am na ñu la ëppale alal Cees téeméer junni yoon mais xelam xalaatum mu tudd leen bis tax mën naa am diine ñoom leen mais xam na diine ji mu yaakaar ci yow moo tax mu boole ci marraine bi li ma ciy seede mooy jàkka ji ñu tabax fii bu mu paree man maa ko tijji jàkka ji bi mu paree ak suba lañ ma wane ma jàkka ji ñu doon tabax ci kii bi pare na dañoo bëgg ñëw ànd ak ñetti nit ngeen jàng fi alxuraan tijjil ñu ko loolu mooy mën na ni lu am solo te loolu boobaak leen war naa mat fukki at kon wax na suñu leen dokkeel ci bis bi bisu teraanga la tey daal mel na ne ni ku jóge màkk ñu lay ziar ndax alxuraan nag ku ko tuddee rek wax dëgg yàlla mooy taxawul alxuraan ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na la jik yal def tawfiq yal mu daan li may faral di wax ci bisam rek mooy nag organisation boo ko tàmbu mën na laa nax lu xumb xumb xumb xumb xumb duñ fi duggee dispar loolu fu ma dem ci organisation dama koy wax hmm. lu mu xumb xumb ñàkk nit amee bu ñaar nit nekkoon sax mi jotee mën nañ commencé ndax bëggul nit ñi waxtu julli jot mu téye leen foofu ñu bañ a julli mm. moo tax ñu ngi ñaan képp koy invité ànd ak moom fekk ndax deux heures ñu déglu jotaay bi. di am mbégte bu mag eh, ndax lii ngeen ma cere ne nii daanaka jigéenu Cees yëpp ngeen ko cere de jigéenu C50 yu président Ablaye Sylla yëpp ngeen ko cere de. muy cër bu ñu nangu nag di cër bu ñu neex ndaxte ñun avant tout diine ji mm-hmm. moo ne ci kaw diine moo nekk au sommet li ci des yëpp doog a ñëw nga amaat beneen mbégte boo xam ne danga nga xamee ni sama càmmeñ bi Nasrin mu mare neel ma bisam bi ndaxte moom sama xamante moom yàgg na mm-hmm. wax na ko ndaxte sama borom kër euh, bi mu génnee àddina en 2007 moom moo ñëw représenté fi sëñ Mamour Mbacke ndaxte kat euh, ñi ngi dokk woon ci sëñ mutta mutta Murtada Mbacke fekk sëñ Mamour nekk États-Unis mu yebal ko moom nii mu ñëw taxaw fi taxawaay bu rafet lépp luñ fi def muy moom ak sama nijaay Serigne Saliou Touré mm-hmm. donc tey jii bis bii bis bii muy trent et unième édition te ñëpp xam nañ ni fanweer ak benn édition du ay caaxaan mm-hmm. donc lii dëgg rek moo ko mm-hmm. ndax lu dul dëgg du dara mm-hmm. sama niyaay doon ci ñëw sëñ Saliou Touré man mii naa ci ñëw mais pas en tant que marraine yenn saa yi dama doon bëgg ay nit yenn saa yi moom daf ma doon invité ba ñëw mais tey jii sama nijaay su génnee àddina mu di rendre hommage ci bis bii suñu mën bi sax damay ñëw. Mm-hmm. ndaxte sama nijaay nag moom doon lépp soxna xaddi si sama waajur bu jigéen. Mm-hmm. lu am suñu kër moom la lu xew suñu kër mooy taxaw taxawuñu lool nag. Mm-hmm. Touré yàlla yàlla yokk leeral. bu baax mu doon fierté Kees. donc sama xol sedd na. incha allah président Ablaye Sylla dina ko yëg. dina ko ko wax. te incha allah dina ci jàpp. ndaxte sama sama sama doom la. Hmm. ma wëlbatiku encore nag di ànd ak ci politique. Hmm. may ñaan rek tam ngeen fasaare ko ci yéene ngeen ñaanal ko ba nga xam ne mbébét yi mu am senegal Sénégal yépp yàlla sotti ko. ak hmm. jàmm ak salaam di gërëm ñëpp di sant ñëpp. di nuyu sama niyaay. Ousseynou di nuyu. sama sama sama sëriñ. sama sëriñ sama doom <laughs> ah. di nuyu sama cànde yi. su seen lu lay. waaw di nuyu ñaari Baye Fall. Mm-hmm. Ah, wax dëgg yàlla fii moom kanam yëpp miin naa leen. dëgg mm-hmm. la <laughs> fi la ñu dëkk. Mm-hmm. bokk ndey bokk baay jërëjëf.